asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki taalibe yi rawatina sama bokki taalibe yi dëkk Touba seen bokkum taalibe moo leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu di leen wuutu ci kàddu yi ngir xam ne kenn ku ne bu ko mënoon waxal boppam moo koy wax ngir lii fi xew yàpp yàpp naa ne képp koo xam ne war mooy dëkk bi ñor na la am nga ci naqar ma yëkkati sama kàddu nag gannaaw bu ma seexaaree Cheikh Mouhamadul Mountakha déglu kàddam yi kàddoom yu ak yu mujj yi di tàllal samay loxo di sukk fi suuf ci kanamam di jéggalul murit yépp yi tooñ ak yu tooñut ndax murid yëpp benn bopp lañ lu ñenn ñi def rek mel na ne ña ca des lañ ko def kon nag murid yëpp nga ànd di la jéggalul lenn ti murid yi tooñ te jaaxle teg leen ko ak njuumte ak ngëlëmte ngir dafa am ñoo xam ne attanuñ xiif ak yenn natt yi loolu rek leen ko teg waaye lii xew ñëpp ko yëgandoo muy sëriñ si muy sëñ daara yi muy liggéeykat yi muy ñëpp a ko yëg waaye ñëpp yëg sëñ bi ak ruus sëñ bi tax na kenn ku ne muñ muñ gu rafet ñoom nag ngelimte li leen dal ngelimte képp la waaye jaawuluñ sëñ Tuubaa ak dara booluwuñ sëñ Tuubaa ak dara taalibe sëñ Tuubaa fi ñu juumee nag la ca jiitu mooy ko am kilifa gu mel ne yow bu amee lu ko jaaxal dafa war a ñëw ci yow te yow ubbil nga sa bopp bunti taalib bunt say buntu taalib yëpp wàcce nga it ba tolloog ñoom bu ñu waxee nga déglu leen bu ñoppee nga tontu leen te lu ca war da nga ko def kon la gënoon mooy ñu def délégation ñëw jàkkaarloog yow wax ak yow wax la fi ñu toll xamal la ne àgg nañ ci buñ xëyee duñ am luñ lekk te dañ daa liggéey mënatuñoo liggéey ba am na ci ñoo xam ne dañuy taxaw di yalwaan te duñ gis sax ku leen sarax ndax duñ gis ku leen tane loolu di tolluwaay bu metti boo xam ne mën naa tax nit def lu mu a def ne jàpp naa ne xam nañ ne war may dëkk bi weesoo na di fi ñaxtu ndax mësu fi am te buñ jëmoon ba am lu leen naqay di ko wone mën nañ ko wone ci geneen anam mooy tudd yàlla jàng xasida yëkkati ca kaw ñu yëg ni ñii daa am lu ñuy wax dikk ba ci yow ne la lii moonu metti te yow lañ am boobaa danga ko saafara foofu lañ juumee te jaaxle leen ko teg ak matadik doomu aadama ak lompañu doomu aadama waaye Sëñ Tuubaa rek lañ yaakaar mu des nag bañ ko defee te defee ko noo xam ne njuumte la ab rax am ca boo xam ne dañoo rax ci biir mbooloo mi yàq la yàq di nit ñu yàqu dikk di yàq waaye nag nii nga ko waxee Mbàkke Sëñ Tuubaa kenn ko yàqal ku yàq sa bopp rek nga yàq kon nag ñii nga xam ne bokkuñ ci rax boobu yi waaye ay taalibe lañ te dañoo amoon lu leen naqari ñu faje ko nuñ ko war a faje te njuumte tax te mosu fi am ñoo ñu lay jéglul di ko jéglu waalil murid yëpp mbagge te xam ne ñoom de dañoo xamul ne booba yaa ngi ci ñoom ndax li ngay lijjanti ci suuf te bëggoo kenn yëg ko bu sottee jafe-jafe yëpp dana jeex te li jafe woon lépp dana yolom te loolu des na tuuti ñu xam ca dara waaye nag umpule ga tax na ñu bëgg a fajal seen bopp jaaxle ga tax na ñu bëgg a fajal seen bopp lomp ñu ah doomu aadama tax na bañ gëlëmee xamatuñ fuñ jëm ñu bëgg a fajal seen bopp waaye mbàkk bi luñ ci topp mukk ki fi nekkal dafa waxoon boromam ne ko jullit yi day fa innahum na in ko yaa ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad buñ demee ba mooy la it ak càggante la waaye bokkaali wuñ la kenn waaye maa ngi lay xamal ne yow itam taalibe sëñ Tuubaa yi tey buñ demee ba def lu neexut sëñ Tuubaa ji dëkk bi taxul ñu yemale sëñ Tuubaa ak dara sëñ Tuubaa rek lañ am boolu ko ak dara kon nag noo ngi sukk di jégglu di tuubal mboolem ko juumoon mboolem ko tooñoon ngir jëmmi sëñ Tuubaa samer xaju ci ñoom te ku xam sa mbégte xam ne sëñ Tuubaa yërmande yàlla jëm doon da caa sàkk yërmande joo jox la ba ko xool sa xarkanam kanam rek mbég lay njëkk a gis mbégum kese nga buñ jëmee ba gis sa xar kanam ne yow mi tàng nga mer nga te loolu kenn mësu koo gis daanaka ndax lu naqar yàlla rek leen naqar naqari xotti war may dëkk bi rek tax ñu gis sa xotti war may yoon képpay tax ñu gis sa kon nag xam nañ ne tooñ nañ la buñ mënta ak si yow jégalu kenn ci ñoom mi ngi lay jégalu ci seenu tur ñoom ñëpp ñoo ngi ñaan jégal leen te bañ leen a topp dara ndax sa mer ci ñoom waaye nañ delloo si suñu xel nun taalibe yi te xam ne ñàkk sëriñ bee ko yor kon nan xam niñ koy wute niñ koy wute ci barab bii mu ne ñu war maal ko ngir moom njabootu boppam gii ñu xoolee leen ko war warmaal leen ngir moom te bañ a xool ci ñoom dara te jàpp leen ngir Sëñ kenn ku ne bi ngay ñëw ci dëkk bi dangay nga am loo mënta ñàkk di ko wut si sëriñ bi moo tax nga ñëw bàyyi sa lépp gàddaay ñëw fekki Sëñ Tuubaa kon nag loola koy tax a ñàkk lu ne war nga koo moytu loola koy tax a am lu ne war nga caa sax Mbàkke Bàlla noo ngi tuub di tuubal taalibe yëpp di jéggalul taalibe yëpp yow li la war lépp def nga ko ndax lii bi amee ñépp ko yëgandoo ci ñëpp la metti sëriñ si ñoo ko gën a yëg ñëpp dongay daara yi sëñ daara yi liggéeykat yi ñëpp am lu leen metti kenn ku ne am na looy dund loo xam ne mënu ko wax kenn waaye da nga da nga sa ngor rek di muñ waaye nag ko xool ci yow rek mën a muñ lu bari ndax fàttewoo kenn te yaa ngi bàyyi xel ñépp ndax yow de ba nga yëkkatee la nga man te fekk la ci sànc bu rëy mu université bii nga ay milliards yu dul jàll teewul nga yëkkati ñaari téeméeri million jox ko nguur ne nañ ko dimbalee ci lii ci paj mi da ngaa wëlbatiku waat fab dund bu doy sëkk jox ko jàngalekat alxuraan yi ndax dimbali leen wëlbatiku waat fab dund bu doy sëkk jox ko jànk xasit jànk jànkati xasit yi xam ne mënatuñoo génn ngir dimbali leen wëlbati ko yëkkati dund bu bari jox ko waa dëkk bi gox bu ne ñu dem ci fa dëkk ba yam tàmbalee fa jëm si jumaa ji jox ko ñu doy ñu séddale ko nam ware te loolu ci mboolem koo bokkal sëñ tubaa dem di leen seeti mboolem koo bokkal sëñ tubaa da ngay fab di ko jox ngir jàpp ne waajuram sa waajura bu fi nekkoon da ko war a jox kon nag da nga matale ji fépp bàyyi xel ñëpp yëg ñëpp yërëm ñëpp kon nag nanga nga toppe woon say mag ak say waajur ba egsi fii ne la ñu war a toppee lii lii xew day lépp la woo day lii lii ñu la lii ñu ñu def tey day lépp la woo ko bañ war la koo fay ndax yow day ba da ngaa topp waa ga sëñ Tuubaa ba gisatoo leen ba fi sëñ Baara nekkee nga topp ci gannaawam bàyyee ko boppam bàyyee ko sa bopp. dinu wonu yoon nun ñi nga xam ne say rakk lañ ba xëy Cheikh Mouhamadou Cheikh Cheikh Sidi Moukhtar ne fi nga def noonu bàyyeeko lépp doon jëwriñam nekk suñ gannaaw duñu woon yoon duñu digal dem ba doon sëñ Tuubaa nag kon nag li war mooy la nga leble woon ci say ci say mag ak say waajur taalibe yi fay la ko bokk yi fay la ko bokk yi sant nañ gërëm nañ bokk yëpp a ngi lay xool bët boo xam ne seen xool sedd na seen xel dal na waaye taalibe yi ñi jaaxle woon ba tax ñu def lii nañ dellu tuub te delluwaat wéy ci ndigal dëkk bi dëkkum ndigal la dëkk la boo xam ne kenn waru fee ne dafa jël sa bopp xam naa ne xam ngeen ku njuumtee taxoon ak ngëlëmte ak jaaxle ba xamatu leen lu ngeen def moo tax ngeen def ko waaye du warta doon jikko yi ko dëkk ci dëkk bi waaye nag nan àndu ñun ñëpp jéggulu Cheikh Mouhamadou Mountakha te wéy ci ndigalam te bàyyi ko xel te jàppale ko ndax kilifa la gu jafe kilifa goo xam ne dafa wàcc ba tolloog yow di le déglu boo ñëwul mu fekk si la boo amul mu jox la loo joxe mu defal la ko ci liggéey bi Sëñ Tuubaa bi kilifa gu am ku mel noonu ku ko am danga koy fonk te sakkanal ko te bàyyi ko xel kon nag noo ngi ànd ñëpp di tubaat di jéggalu di ñaan nga jéggal nu sa bëtub yërmaande nga xool nu ko jéggalu nu sëñ Tuubaa mi ñu tooñ nga nekkal ko fi maa ngi jéggalu ñëpp. waaw noonu noonu rek la demee nañu góorgóorlu bu baax a baax te xam ne eh, bi xewee ba léegi eh, lama ma ci man sama kéem kattan maa ngi ca te. maa ngi maa ngi fi lu mën a ñëw rek bu nee tekk rek daan mën a xam nan koy mën a lijjantee na mu gën a rafete ba loolu jeex loolu ci la nekk ndax xew-xew démb bii fekk na biñ yëgee ne ah, dëgg la nit ñi àgg nañ ci sonn ci xiif yooyu fekk na ñooy am xalaat ñu leen dimbalee lii moom la xew démb rek ñu ko ñu ko xalaat te ne dimbali gi weesuwut weesuwut eh, waxal nguur gi goon leen li mbir mi ni mu demee il faut que ñu borom xel lañu il faut que kon itam eh, jóge ci jëy yi jëm ci jëyee moom amul njëriñ foofu laa ko tënkoon mujj foofu laa ko mujjoon tënk man góorgóorlu noonu wéetal yàlla rek te doylu Sëñ Tuubaa waaw ndax lu mat a fàggu tey la fàggul nañu ko lu mat a ñaan ci lu musal fa ñaan na ko ci boromam te nangul na ko waaye nag am nañ wartiif masuliya bu rëy mooy nag nan ko nekkal sëñ Tuubaa la nekkal <laughs> sëñ Tuubaa neexu la nekkal ndax ndax ndax ndax sëñ Tuubaa ñëw kenn kenn kenn ci boromam amul menn mbindeef sëñ Tuubaa ñee amul